asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci bi Equivox TV comme ni ñu koy defee. à fois lépp li nga xamante ni rek actualité la bu ñeel wàllu people bi dañ leen koy euh, faran fàcceel fii nga xamante ni rek moom mooy euh, Vox euh, people ñu dooree ak génnu àdduna ki nga xamante ni rek moom mooy waajur bu góor ki nga xam ni moom mooy Cheikhou kuyaate di l'international sénégalais moom nag dafa daal di ñàkk li nga xamante ni rek moom mooy waajuram bu góor muy wuyoo ci turu Njogu Kouyaté démb après li nga xamante ni rek moom mooy match bi mu jàllee équipe bu Equivox TV yëpp ñu ngi koy jaal bu baax a baax euh, waajuram bu góor moom mi Cheikhou Kouyaté ñu jàll ci beneen information euh, people mu ngi xewee démb fële ca Vogue moom Wally Ballago Seck ginnaaw rek euh, bi mu fa tëggee li nga xamante ni rek moom mooy soirée ginnaaw humiliation bi nga xamante ni yenn ci site internet yi ñu koy bind naan dafa humilier ki nga xamante ni moom mooy son yi bu télécom démb nag ki nga xam ni moom mooy woykat Soriba nekk koo xam ni kenn doot ko présenté Sénégal moom moo ñëwoon bal si ki nga xamante ni moom mooy Wally Seck daal di di ànd ak ak soxnaam bii di euh, Ndeela Rima ginnaaw rek ba mu yéegee ci kaw chaîne bi nag te moom Rimarta mi ngi doon battre ki nga xamante ni rek moom mooy Wally Ballago Seck Wally di ko kañ di ko woy moom ak euh, borom këram di Soriba Kouyaté mais selon les vidéos bu ñu sukkandikoo ci ay waxi Adamo mu ngi ni carrément xaalis bi nga xamante moom Wally Ballago Seck doon delloo ki nga xamante ni rek moom mooy euh, Rimata ba ko Rimata mayee li nga xam ne moom mooy xaalis ba mu ko laalee dafa xam ne ay foo billet la maanaam false la xaalis bi nekk woon xaalis boo xamante ni xaalis bu baax la ci la Wally jëlee li nga xamante ni rek moom mooy euh, boobulee euh, xaalis daal di ko koy delloo benn par benn ba moom Rima ba muy wàcc sax boo ko xoolee dafa nekkoon mal maanaam dafa dem ba dafa rus Adamo moo ko daal di xamle nee daal xaalis bi nga xamante sooy baa ak euh, jabaram ñu ngi ko doon may Wally Seck xaalis yoo xamante ni rek faux euh, billet la.